mbokku internet yu Hann di di a ci li xew ci Italie ci fan di yaram coronavirus ba am juróom-ñaar ñu fa ñàkk seen bakkan ñu ci ak ci téléphone gi doomu nekk ci Italie di volontaire Croix-Rouge te nekk itam président en solidarité internationale ak doomu diaspora tontu ak laaj dox na ci digganteem ak rédaction bu Hann TV. salaamaaleykum Mara ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku internet yu Hann TV. waaleykum asalaam wa rahmatullah euh, mbokku Hann TV ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp ñu ngi baalu àq ñëpp tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñun la seen mbokk Mara Kunta Euh, président en solidarité internationale. jërëjëf Mara léegi ñu bëggoon xam ba xam mën nga ñëw defal situation bi foofu ca Italie gannaaw ba fa coronavirus duggee ba léegi. waaw Aliou comme niñ ko laajee rek euh, situation bi nekk fii bon du ñu ne critique na waaye tamit du ñu ne critiqueul parce que alerte rouge la ñu nekk ah depuis lundi bi passé euh, kenn jàngiwul ci école yi nekk ci région Lombardie bi école yëpp dañ koo tëj kenn jàngiwul. Euh, rax ci dolli euh, couvre-feu décrété nañ ko parce que à partir de dix huit heures lépp luy supermarché day tëj te daan nañu dem ba dix heures ci guddi euh, baar yi daan nañu dem ba minuit une heure pizzeria yi mooy ñiy jaay pizza daan nañ dem ba une heure du matin deux heures du matin mais ñoom ñëpp à partir de dix huit heures dañoo war a tëj fi mu toll nii ñu ngi alerte rouge doomu yaraax yi nag ngay wax particulièrement doomu Sénégal yi bon déggaguñ ci cas yoo xamante ne dañ leen di spécifier liñ ci xam daal moom mooy ne comme li ma la waxoon noonu mooy dëkk boobu di Vaud di 3305 habitants que habitants yëpp ñu ngi quarantaine ñu ngi quarantaine nag ça veut pas dire que ne euh, am nañ ko parce que démb rek def nañ plus de 200 et quelques tests mais tests yëpp moo négatif te chaque jour ñu xëy di defal population bi di continuer li fi jara kii te jaaxal ñu ñun ñi nga xamante ne nii xëy na ay doxandeem lañu fii moom mooy ne est-ce que du nasaraan si dañoo xam ñun lu ñu xamul parce que dimanche bi ak euh, lundi bi dañoo daw songu supermarché yi lépp li nga xamante ne nii denrée yoo xamante ni du yàqu moom mooy suukar moom mooy euh, diwlin moom mooy ceeb mooy farine moom mooy pasta desatul ci euh, supermarché yi lépp lépp lépp lépp jël nañ ko yóbbu ko pour denc ko pour denc ko nag euh, lan la parce que tamit xëy na feebar bi am na mais ba léegi supermarché ñu ngi tijji lan moo tax ñuy ravitaayu dañoo dégg information ci leneen parce que xëy na tamit région Rombardia bi est-ce que du région bi yëpp xëy na la ñuy quarantaine bu fekkent ne lii mi ngi continuer. Mara dégg nañ am na ay nit yu fa jot ñàkk seen bakkan foofu ca Italie naka la demee. waaw fi mu toll nii moom euh, démb ne am na. sept euh, personnes yu ci décédé sept personnes yu ci décédé six yi ci région Lombardia bi la euh, décès yi nag yëpp nag dafa nekk ay personnes yoo xamante ni déjà mag la ñu woon rax ci dolli it dafa am ay yeneen feebar yu ñu amoon ñu koy wax ay pathologie donc dafa ñëw rek euh, yokku loolu bi mu ñëwee xëy na seen organisme antanu ko parce que dañoo amoon yeneen feebar mais daal amaguñu information ne am na koo xamante ne nii dara jotu ko woon feebar bi song ko rek mu faf décédé ci amaguñu information boobu. Mara gis nañ couvre-feu bi déclenché nañ ko foofu ci Italie. askan bi yeewoo fii Sénégal am seen njaboot yi nekk foofu ba xam tey seen xel mën na dal. dalal xel moom mën naa mën a nekk tooñuñu kenn parce que yaakaar nañu ne dafa am ay cas yoo xamante ni dañu wax ne ay doomu Sénégal yu nekk Chine bañ ko waxee gouvernement Sénégal Euh, dafa ne moom amul kàttan goo xamante ni mën na dem jëli leen parce que équipé wul mais nag Italie moom euh, loolu amu fi Italie préparer nañ ci camp militaire yi ak yenn hôpital yu bëri yoo xamante ni tas nañ leen ci dëkk bi pour euh, équiper nañ leen ba pare pour cas bu ñëw rek vraiment ñoom ñu taxaw ci seen kéemtalaay kàttan donc nag def ay ñaan la am na yeneen feebar yu fi amoon Ebola wak yeneen yu kenn xamul mais yooyu yëpp ñëw nañu ba. jàlla amoon na ñu ko am itali mais yàlla wis na ci ndox mu sedd mais daal bu fekkente ne daal ci wàllum euh, jumtuwaay ak di Italie daal pare na pour euh, affronter feebar bi. Mara ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ñun tamit euh, ñu ngi jaajëfal ñi nga xamante ni yëpp ñu ngi suivre Hann TV te di leen encourager di ñaan seen mbir mi law dem ca kanam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.